merci euh, donc dañu ñëwoon ci Touba pour euh, ñu xayma liggéey bi nga xam ni euh, ci projet di ville donc projet bu am importance bu président de la République jaglel askan bi surtout au niveau des des villes hors de Dakar bu mel ni Touba donc Touba bénéficier wu na ci donc mu am solo trop parce que soo xoolee projet bi. mooy projet gestion eaux usées mooy ndox mi jógee ci kër yi mu am tooke yi euh, foofu déjà mën nañu wax ni euh, liggéey bi presque euh, waa sori na bu baax a baax parce que ñu ngi ci quatre vingt plus de donc de de réalisation li ci des mooy d'ici en fin juillet normalement war nañu am vraiment réalisation yi mën a mën a pare comme il faut li mu ci wax mooy importance su li fi ñu taxaw nii mooy station d'épilation de traitement am na solo ci projet. Euh, donc gestion eaux usées euh, pourquoi parce que cent station traitement donc mën nañu wax ni en fait pour nga gérer euh, en réalité assainissement bu pour pour assainissement ndoxu ndoxu kër yi day xaw a jafe parce que doo ko mën a sànni fu nekk doo ko mën a tuur fu nekk pourquoi parce que en réalité environnement day bañ di ñu rejeter ndox moo xam ne am na ay tooke ci ci ci ci ci ci ci àll bi donc moo tax vraiment station bi am na solo trop euh, donc euh, ñu waroon ko teg d'abord li ci topp mooy li ñuy wax réseau primaire réseau primaire il faut que mu am pour que euh, ñi nga xam ni ñoo ñooy ñooy ñooy askan bi ci ci ci kër yi ñu mën a raccordé wu. pour seen ndox mën a ñëw fii fi nga xam ne fii lañ koy traité donc euh, réseau boobu aussi primaire bi euh, kii nañ ko liggéey nañ ko presque euh, ba jeex na li ci des mooy réseau secondaire yi donc raccordement yi nga xam ni fi nga xam ni donc financement bi ci la mën a yam ci la ñu mën a yem ci affaire raccordement ci ci ci kër yi di wax ne rek réseau aussi primaire bi dafa accompagner ak ay accessoires yu mel ni station de relevage ak station de pompage am nañ ci juróom-benn yoo xam ni donc euh, évacuation euh, ndox mi nga xam ne mooy ndoxu ndoxu tooke ndoxu tooke euh, ci beneen fànn bi aussi ci Touba évidemment am na ay jafe-jafe ci gestion ndoxu taw bi donc di wax na rek foofu aussi état du Sénégal liggéey na ci liggéey bu am solo ci ay ay station de pompage yoo xam ni mu ngi fi surtout station bu pompage bu bu bu bu bu bu am solo bu nekk Kër Ñang donc boobu day jël. Euh, ndox mi yóbbu ko ci euh, exécutoire bi bi nekk fële Daaru Daaru Salaam donc Daaru man donc euh, nekk na loo xam ne aussi lu am solo la parce que ndoxu Touba bi yëpp pratiquement foofu lay ñëw alors loolu am na solo trop di wax ni rek ndox moomu waruñu ko bàyyi noonu war nañ ko réutiliser parce que li wër foofu yëpp ay ay tool la te ndox moomu war nañ ko jëfandikoo pour au moins ñu gën a ñoxal donc gën a développer mbirum mbirum mbay bi donc foofu jamono ñaari communes yi war nañ ci gën a réfléchir ñu ànd pour ñu mën a exploiter loolu. lu ñu gis foofu aussi moom la gis c'est station de traitement de boue de vidange yi donc foofu aussi traitement boue yi aussi day joxe eau bi ñu traité mais day joxe aussi boue boo xam ni compost la te suñ ko utiliser ci agriculture day joxe rendement bu am solo donc di di aussi di rafetlu euh, ñi nga xam ñoom fekk mooy euh, organisation association Touba ci ci kanam nekk na organisation vraiment bu ñu war a naw.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 donc euh, en fait li ñu su bëgg day day gën a day gën a gaaw day gën a gën a baax donc vraiment euh, di leen félicité di la encourager di leen wax ni rek à partir d'aujourd'hui donc on est des partenaires et dañu continuer di liggéey donc ci ci ci loolu euh, voilà donc li ci des mooy maintenance parce que benn mooy def ay ouvrage rafet na lool état bi def ci ay xaalis bu bëri ay milliards parce que projet bi pour pour fàttali leen ñoo ngi ci 9 milliards et quelques nekkoon na douze milliards mais wàññi nañ ko parce que région de budgétaire la actuellement nii li ñu am ay sept milliards et quelque la donc am nañ deux milliards de gap boo xam ne ñu ngi koy rechercher pour yenn àggali yenn travaux yi bon wax leen rek donc importance donc financement bi euh, donc ci ci loolu donc ci comme ko demee na noonu je crois que il faut que ñu fonk li nga xam ni moom la ñu réaliser fonk mooy lan mooy ñu xool naka ouvrage une fois que moo terminé ñu xool naka lañ koy fonctionner mu normal ba nga xam ni ah, dëgg-dëgg euh, li liñ ci yaakaar. ay at yi mu war am mu mën ko am suñ ko géré wul nag day poser problème donc problème boo xam ne dëgg-dëgg de il faut que quand même euh, donc ñun ñi nga xam ni ñuy état à travers ONAS mairie bi ñu accompagner yu Touba ci kanam ñu accompagner yu ba ñu xool benn mécanisme boo xam ni de de gestion benn modèle de gestion boo xam ni donc suñ ko jëlee rek donc dañ ci am loo xam ni moom lañ ci moom lañ ci bëgg euh, di remercier vraiment les les maire ci taxaw bi ci engagement bi gis nañ ko parce que loolu ñoom. équipe ONAS du ñu mën a àgg fii ñu àgg nii donc ñoom ñoo ci taxaw porter projet bi avec les populations di remercier aussi euh, les entreprises entreprise bi nga xam ni donc mu ngi fi RC donc gis vraiment en fait liggéey bu rafet bi ñu def di leen remercier di leen encourager pour vraiment ñu jëm vraiment vers la finalisation donc de de ce projet la di remercier cabinet de contrôle parce que ñoom aussi am nañu responsabilité parce que suñu waxee ni ah ñen ñoo woon euh, travaux yi su baaxul dañuy wax ne xanaa amuloon cabinet de contrôle. donc am na une responsabilité su ñu waxee cabinet de contrôle donc responsabilité boobu dañ ko war a wane su ñu amee ay dysfonctionnement ñoom ñoo war a wane ni am dysfonctionnement entreprise mën na corriger suñ ko deful nag donc ils ont failli à leur mission donc ci côté boobu aussi je crois qu'il faut que ñu leeral loolu euh, ñi nga xam ne ñooy cabinet euh, IEC mooy sensibilisation ñooy dugganteeg askan bi ñooñu aussi euh, rôle bu importance la ñu la ñu war a te la ñu jouer ñoom ñoo war a xamal askan bi. projet bi lu mu lu mu lu mu ëmb euh, ñoo war a wax wax askan bi euh, ni projet bi war a doxe donc li ci nekk ñëpp ci ñoom lu war a jaar donc seen liggéey aussi am na solo trop tant que seen contrat bi jeexul aussi seen liggéey dafa war a dafa war a continuer te aussi ñu leen wax ni rek aussi euh, mairie bi. Euh, mën na leen accompagner ci sensibilisation boobu donc mu nekk loo xam ni def naa war na war na am am solo donc di wax ni rek vraiment les mails la dañu am benn protocole boo xam ni peut-être convention boo xam ni mën nañu ko signer ak ONAS pour ku ñu xool ku ci nekk ay engagement ah donc euh, du ñu wax ni lii maire moo koy def déedéet maire day xool li mu mën a def moo xam ne lii kat yenn maanaam mën na ko def mu jàpp ci moo xam ni ah lii kat seen euh, responsabilité la seen engagement la donc suñ ko ci jàppee rek on a fi keneen jàpp foofu je crois que lépp lu bëgg rek ci ñuy wax assainissement ci dañ ko mën a am donc su su su neexee suñu borom. loolu moom bu dee loolu ñaari mbir a ci am dafa am loo xam ne nii évacuation au pluviale la ndoxum taw mi lañ ko jagleel ba dootul dugg ci kër yi muy wal di dem. loolu am na fu muy daje lii nag eau usée la xëy na sax dugal ci loolu dana jafe ndax yaakaar naa ku ku ko cay dugal boo matul bu buuse sa kër lay njëkk a yàq yow ndax ndax du dem sax fa mu war a dem ba fay dem kon loolu moom yaakaar na kon nag euh, loolu wante bu fekkee ne nii eaux pluviales yi la loolu moom sëriñ bi li muy njëkk ñaan mooy dafa am barab yu muy jaar ca barab yooyu ay nit ñoo fa dëkk ca nit ñooñu kenn waru leen a lor kon képp koo xam ne nii rek. branché woo coon bul ko xalaat ca yooya képp koo xam ne branché woon nga ci it ca xam nga ko it yoon day def nga dindi ko nga dindi ko ca yaakaar naa dégg ndigalu sëñ bi nag moo gën ñëw ba yoon di dal ci sa ko nga koy dindi ndax boobaa dootoo ca am ngërëm ca it yaraa nga mën na caa juddoo kon loolu ndax it nañ xam ne première station bi nga xam ne moo ci njëkk am am na ci loo xam ne bu débordé woon mën naa fël ca jumaa ja wante yaakaar ca kenn warta bëgg nag jël ca la nga gën a bonle nangu mu feeñ sa kër nga koy sëpp ci jumaa ji kon loolu lu am solo la beneen ba ca des it regard yi muy jaar it am na coo xam day ubbiku ba boo ci jaaree mu am ay xet mu mën a jur ay jàngoro kon yooyu yëpp nag lu mat a bàyyi xel la euh, réseau boobu nañ ko bàyyee taw bi rek moom muy jaar di jàll euh, ku ci dend ak dara la ngay sakkee wala ngay fat sekkartee ko sekkartee ko kon loolu yaakaar naa buñ ci maasee rek mooy li ñu waxoon rek sëriñ bi li waxoon rek ne ñoom indil nañ ñu lañ ñu andil na ñoo ko war a saytu ba bu ñëwee dañuy fekk lu ca yokk wante duñ ca gis lu ci cay wàññiku waru waruñu di leen laaj intervention boo xam ne heure bu ñëwee dañuy fekk ne ñun ñoo def ñoo waral loola am kon nag loolu nañ ciy conscientiser wu di ñaan nag ñi nga xam ne nag ñoo yor ci wàllu communication ci dëkk bi yëpp eh, te ñi ay taalibe Serigne Touba ci liggéey Serigne Touba dong leen tax a jóg loolu moom lu ñu ci wax ak luñ ci yeete rek doyul eh, kilifa yit yee ci seenu njaboot ndax it am na ci loo xam ne bu ci kilifa yi àddoo nañ ci war a rek lu bari dana mën a saafaru ñu bu baax eh, directeur général de l'ONAS ci démarche bi nga xam ne def na ko muy yow ci dëkk bi saytu si li nga xam ne ni moom lañ ko fi sant ci ab liggéey te muy liggéey bu bu rafet rafet boo xam ne bu dëkk bi yittewoo la jëm ci wàllu eaux yi ak euh, eaux pluviales yi ndoxu taw yi euh, muy liggéey bu am am solo nag boo xam ne dëkk bi yittewoo na ko lool lool lool. Touba ci kanam nag nekk ci partenaire ndax ku ne xam na ne ren ji dugal nañ suñu loxo ci wàllu assainissement bi. def ci ay liggéey yu ama am solo ndax xam nañ ne assainissement lu diis la euh, looloo tax état dénku ko kenn euh, da ko yoral boppam waaye nun nag ak barkeb Sëñ Tuubaa bi ñuy liggéeyee ci biir ñaan gu nangu jàpp nañ ne sëriñ bi moom dara diisul ci moom loolu taxoon bi ñuy woote ci ñu defar dëkk bi ba nawet bi di jub si daaw màggal gi nekk ci biir nawet ñu ne nañ indi suñ contribution ndax donte état ngi def it mënta def lépp wala su mënee def lépp it mënta defandoo lépp loolu moo waraloon ñu indi suñu contribution ci biir liggéey bi ci loolu nag lañ amee woon collaboration ak ONAS bi nga xam ne li fi mas a nekk lépp ci wàllu assainissement moom moo ko fi def te moo koy saytu ngir euh, liggéey bi gën a ñoŋ gën a baax ci ndigalu sañ sëñ Mountakha it lañ ko jëlee woon mu jaarale ko ci sëñ Basum sëñ Abdou Khadir ñu wax ak kilifay ONAS ñu boole ñoom ñi leen fi nekkal ñu ànd ak liggéey bi bañ tàmbulee ba fii nu ne lépp luñ ci def ñoom lañ ko àndal ndax lenn li li ci ëpp ci réseau bi la dem euh, Euh, li ci des xëy na moom la ñuy wutal euh, euh, assainissement bu autonome boo xam ne xëy na dafa sori réseau bi wala du jàppandi ngir ñu dem foofa wala la nga fay def xëy na def ko wutal ko fu mu mën a dem ci lu dul muy dem ci réseau bi moo tax nga def ko fa waaye lu ci dul loolu rek ci réseau bi la dem kon partenariat bi loolu moo ko waral mu nekk nag partenariat bu sérieux wax naa ko démb wala barki démb kilifa gi bi mu ñëwee ñu toog toogaay bu njëkk moo sàkk sunu teewaay sunu sunu jataay ak moom. ñu waxtaan ci lu bari waxtaan nañ diggante tàkkusaan ba timis ñu won ñu ubbil ñu seeni bunt won ñu lan lañ am yéene def ko ci dëkk bi mu jëm ci ñaari wet yëpp muy ndoxum taw meeg ndox mi nga xam ne mooy génn ci biir kër ñu wax leen nu itam li nga xam ne ni moom lañ nam ma def wax won leen liñ ci jot a def ak naka lañ ko defee waaye it won leen fan lañ ci jëm ak fan lañ ci toll li ñu ko ci sante moom ginnaaw ubbiku googu ndax loolu mi ngi mi ngi soog a am wax dëgg yàlla ñu gis directeur général ONAS mu ñëw toog woon ñu ñëw toog mu jël temps ànd ak collaborateur am yëpp waxtaan ak ñun waxtaan wu sérieux li ñu ci neex mooy dañoo gis ci moom sincérité sincérité bu bu mat sëkk ak ak détermination ci li mu bëgg a def euh, apprécier bu baax a baax li ñu def jël ci ay remarques yu yu ama ama am solo euh, loolu dafa dalal sunum xel ndax am na koy àndal xëy na sax man ngeen a ànd àndu kii kat mënumaa ñàkk ànd ak moom actualiser ko ba nga xam ne dana méngoo ak jamono ndax 2006 la woon bu ko defee nag ñu mën a àndandoo en action lépp lu ñuy def ñu àndandoo ko saa yu ñu xoolee ba gis ne am na lu ñu war a def ñu xool xëy na kii dox jëm nii kii dox jëm nii wala ñu àndandoo ko ci nu mu gën a rafete ba nga xam ne ñun ñëpp danañ am réussite ndax bëgg-bëgg bi benn la te mooy satisfaire dëkk bi si surtout ci fànn gi nga xam ne ñoom fi lañ féete ndax Touba Ca Kanam ay yëngoom bari na waaye xam nañ ne itam wàllu wàllu assainissement dafa nekk lu ama ama am solo ci dëkk bi lii nga xam ne nii nag moom lañ tàmbali Euh, di ko def nii te muy lu njëkk ci dëkk bi nga xam ne bi Touba di Touba ba tey mi ngi soog a am loolu moom dañ koy rafetlu waaye ñu xam ne ne ni ñu nekkee ci wàllu assainissement pluvial bi noonu lañ amee yéene demee ko ci eaux usées bi ak leneen ak leneen ndax xam nañ ni ñu ngi yëngu ci wàllu santé di yëngu ci waa wàllu eau potable ak yeneen ak yeneen ak yeneen kon daal euh, li ñu mën a tënk ci waxtaan bi mooy rafetlu nañ lii mu def lool waaye dalale nan ko sunum xel ci ne incha allah bu ñu àndee ak li ñu waxtaanee te yéene ko bu sottee liñ ci bëgg danañ ko di di wax ne daal am nañ satisfaction ci jéegoom yi waaye démarche yi mu def te jëli ci gëm-gëm ci ne moom li muy wax gëm na ko te bëgg na liggéey bi réussir loolu moom dalal na sunu xel jërë ngeen